at bu bees bi ak noo ciy duggee mais tey dama bëgg ñu ñëw ci point bu important boo xam ni toujours ci débat yi xam nga ñun sénégalais yi souvent kenn ku nekk day foog ni moo ëpp sa morom xam-xam. Mhm. Pape Samba bu toogee daf may jaay maanaam man non àdduna jeex na de man damaa jàpp ni jeexagul nag <laughs> laa gën a engagé pour vivre mais classe Pape Samba gi ah yow mal xiyaam si na de. <laughs> mandarga yii ma gis nii ci jamono lii mooy firnde nii ñu ngi yow ma xiyaam <laughs> léegi nag man dama bëgg a comprendre ndax am na ay mandarga yu wane nii yegg si nañu daanaka yowmal xiyaam wala dañuy jékki-jékki rek moom yowmal xiyaam ñëw lii laa bëgg a comprendre. <laughs> jërëjëf Alaaji Pape ci laaj bu am solo bi nga laaj d'abord yowmal xiyaam balaa taxaw fokk àddina tukki te àddina dafa am bis bu muy tukki àddina dafa am bis boo xam ne ci lay tukki bis boo xamante ni ci lay tukki maanaam yowmal xiyaam mënta jot te àddina tukkiwul mais li ma jaaxal mooy yowmun mooy bis waaw xiyaamun mooy taxawaay ba mooy taxawaay ba waaw ok yowmal xiyaam mooy firi bisu taxawaay ba waaw ah, mooy benn bis bi yowmun yowmun ak yowmun taxawaay maanaam yawmu waaw mooy firi bis. waaw alxiyaamati mooy taxawaay ba. kon du ñu toog. déedéet. loolu naa taxaw moom moom it mbakka tamit taxaw yow li ñuy taxaw ci grand bal bi rek doyul rangu Youssou Ndour bi doyul nu rek <laughs> parce que da ngay taxaw ba toqi kon yow mal xiyaam dañuy taxaw. xam nga taxawaay bële ñaata temps la. déedéet. xam xamsiina alfa sana te li ci gën a yéeme benn jouru yowmal xiyaam mooy junniy atu Sénégal. ah ñu nar ko taxaw waa kon lu waral yow yow mul yow mul xisaab ji. yow mul xisaab mooy bis bi ñuy àtte. Ah. yowmal qiyaam dafa bari ay tur. bis bi ñuy taxaw. mooy bisu taxawaay ba. bisu bis bi ñuy àtte mooy bisu réglé ba bisu àtte ba. Ah, d'accord bu la neexee tuddee ko bis bi bisu àtte ba. ak xisaab. ok bu la neexee ni yowmal qiyaam. muy bisu taxawaay ba. waaw ñi ñi seen i tànk di ruux nag xanaa mën nañoo yóbbaale six de temps en temps lu toog surtout mag ñi sama ñoom yaay nga xam ne bu ñuy jóg dañ naan woy woy woy woy woy woy woy woy woy woy woy mu ne ko waay woy woy woy woy nii mu ne ma mag laa amul toog yow ma xiyaam. léegi nag pap yow mal xiyaam moomu pour ñu agsi ci. fokk yàlla tukkal àddina. nu mu koy tukkalee. te yàlla wax nañu bis bi muy tukkal àddina. yoo xam nga ko. bisu vendredi lay doon. àdduna du tukki lëndi ah bon li fekk yaa ngi xëy ne ci lëndi jàppal ni àdduna du tukki àddina du tukki talaata ah. àdduna du tukki àllarba maanaam jouru jàkkaarloo la àdduna du tukki kon ñoom à tout moment <laughs> tukki tukki àdduna mun na leen fekk en plein direct <laughs> kon ngeen xam ne bu baa mën a waxtaan bu baa mën a baab jamono yi birima di wax bay yuuxu. dina mais boobu booba dina wax ak yàlla ba yàlla puus <laughs> ba yàlla bëtal <laughs> mais bu tombé wax nga dëgg de birima di expliquer. jamono yi birima di yuuxu ci la yàlla tukaraat <laughs> wax nga dëgg de jour jàkkaarloo la de. vendredi donc yeneen jour yi amul ngaañ. déedéet ok. jàppal ni heure boo. bis boo song ci semaine bi du bis bi àddinay tukki. Mm-hmm. waaye jàppal ni Pape bis boo songee vendredi. jàppal ni bis boobu la yàllay tukkal àddinaam. te Pape dinaa la wax ni yàlla buy tukkal àddinaam du ko tukkal 6 heures di matin. ban la. du ko. yàlla baax fekk ci lu dagan rek. du ko du ko tukkal 7 heures. 8 ah. heures àddina du tukki. ban heure àddina du tukki. 10 heures àddina du tukki. onze heures ci bëccëg àddina du tukki. waaw ah, kañ lay tukki yàlla nee na su may tukkal àddina maa ngi koy def diggante quatorze heures ak quinze heures. oh day fekk ñu añ ba pare di sieste. heure boobu la yàlla lay tukkil àddina fekk ñëpp dee nañ. oh. si de. dernier arriwaas bi ñoo fiy des. yàlla yónni malakul mawti hmm. ni ko xoolal àddina ña fa des nga rey leen parce que tey la àddina war a jeex dernier jour du monde tey la malakul mawti xool ñi fi des muy rey kenn par kenn moom malakul mawti ñëw ci yàlla ni ko mission accomplie rey naa ñépp moom mawti yàlla ni ko am na ku des mu ne ko ku des ne ko sama PM premier ministre mais moom mawti tëbul étape noonu déedéet xam nga kan lay mujjee rey PM kan mooy. PM premier ministre waaw mooy Jibril. kii nga dégg ni candidat la. PM bi. waaw moo tax ngay neexal baatu titre bi mu am nii pour bu faloo mu wóolu la dañ koy rey de. ah ok dama gis ngay neexal kenn am xam nga la mooy PM. mais dañ koy rey parce que Amadou Ba PM lay. dañ koy rey ma koy neexal nii pour bu toogee wóolu la. day waaj a dee moom laa lay leen. ah ok kon nettalil waaw nettalil nettalil waaw. <laughs> mi d' abord balaa ngay ñëw foofu ci kan mooy euh, ci PM bi ci premier ministre bi nan nan nan la yàlla du tukkalee àddina sunu borom nee na pap su may tukkal àddina damay lem suuf si comme basang eh, daf ñu fekk ci kaw kalla isa dukkatil ardu dakkan dakkan ah kon de kenn du dukkat di daw <laughs> amul dukkat <laughs> yàlla bu xasee ba lem amul dukkat doo dukkat doo dakkat dakkat yi wa jaa rabbuka wal malaku safan safan dukkat dukkat <laughs> allahu akbar eh. pap yàlla nee na ni ngay gisee basan ñu koy lem nee na suuf su may tukkal àddina bi suuf si noonu lañ koy lemee non c'est pas vrai oustaz yaa ngi dégg uh-huh. sunu borom nee na malakul mawti day topp nit ñi bare ñépp mais lu mu wax foofu ba ma dégg ci dukkat dukkat loolu dafa neex dakkan dakkan mooy bu yàlla lemee suuf si mais waxaat ko jaaraatil ci wax kalla ida dukkatil ardu dakkan dakkan oh wa jaa rabbuka wal malaku safan safan allahu akbar alaaji pap sunu borom nee na ma suuf si ba mu dëgër laaj malakul mawti ni ko kana des ci kaw suuf mu ni ma rey naa ñépp te malakul mawti pap buy rocci ruu du am yërmande mooy tukkal gi muy tukkal àddina waaw mais man li ma jaaxal ci li nga wax léegi nii safara la ci teg ah moom yàlla dukkat dukkat waaw safar safar waaw tegu ci safara mooy wa ji a <laughs> bàyyi leen saar yi ngeen di dagg ak ay ay ak hadis leen toj yax yi <laughs> parce que man damay comaytu rek diggante Pape An Modou Fall Assane Seck euh, euh, fu ne ma cof fa dara rek finalement man bu ma leen toppee damay dof mais il nga nga nga àggali safara gi mu ci teg moom yàlla. yàlla sunu borom daf ci teg ni ah. su ma tukkalee àddina ci façon bii ma koy defee. bu lemee bu ko lemee comme basan. képp koo xam ne daawoo ma jaamu nag ma yóbbu la sawaraw jëxan na ma. da nga wax mi ah. ñu taxaw nag ci kanamu yàlla di saalit naan ko yaqulu yaa laytani qaddamtu li xayaati yi ñan ñooy wax loolu ñun déedéet mooy ñi nga xam ne jaamuwuñ woon yàlla ah. dañuy réccu yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal xam nga pap façon réccu yi nit di def yowmal xiyaam aji texe ji woote leen ma may leen ci <laughs> ku ma jot texe nga tey ku ma woo rek texe nga ndax texe weesuwul allo may naa la deux cent mille